allahu akbar ma sulliyati tarawih wa adaati almasajidu bilmasabih wa tajannaba saa'imuna fi hadha alyawmi alazim kullu fiilin gabi allahu akbar ma agaba alfitr assumu wa dhahaba alyawm wa aqbala alyawm wa ajza allahu alghafilina min as-sinati wan-nawm wa ghafara lahum alkhataaya yawman ba'da yawm allahu akbar allahu akbar subhanallahi hiina tumsuuna wa hiina tusbihuun wa lahu alhamdu fi samaawaati wal ardi wa asyan wa hiina tuzhiruun yuxrijul hayya minal mayyiti wa yuxrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadhalika tuxrajuun ayyuha nnaas inna yawmakum haadha inna inna anna yawmakum haadha yawmun aziim wa iidun kabiir kariim ahalla llaahu lakum fiihi ta'aama wa harrama alayhi fiihi siyaam mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ziyaar leen bis bi tey bis bu màgg la bisu feet la bu tedd yàlla daganal na ci bis bi tey ñi nga doon ñi doon woor ñu lekk wa harrama fi siyaamu yàlla arama na araamal woor ci bés bi wa xatama bihi suhuran mukarram yàlla matal na weer bu tëdd bi waaye nag waftataha bihi suhuru hajja baytillaahil haraam yàlla ubbi na tey buntu aji mag tëj na buntu woor tijji na buntu dem aji mag ndax aji makka ay weer la ñu ràññee fa huwa bii yow ma tasbihum bis la boo xam ne dañuy sabal yàlla di ko sant di ko màggal di ko teral ku nekk fa sabbihu rabbakum fii bu ñu dañ mut di sabal yàlla subhanallah walhamdulillah wallahu akbar di ko màggal di ko tamam waftaha bi suhur haj baytillah ilaa fa huwa yowmu tasbihim wa tahmidin wa tahlilin wa taazim fa fii na ngeen sabal seen borom wa azimuhu na ngeen ko màggal wa tuubu ilayhi nañu dellu ci yàlla wastaxfiruhu nañu jëggalu wa alamu an allaha taala irtada lakum hada diin nañu xam ne yàlla de na lañu diine ji muy diine lislaam muy diine joo xam ne ju am solo la moo xam ne diine moo mën a yore réew moo mën a yore àdduna ndax moom la yàlla yor yonente bi sallallahu alayhi wa ndax diina ji bu amoon buñ ko toppoon kasa yu du fees dara du am déedéet lu am foofu lañ koy natt ku sàcc bu ñu waree dagg loxoom dañ koy dagg bu fekkee lamu mu sàcc nag moomu ko bokku ci dëkku ci dara boo déggee ñu naan lislaam dafa soxor wala déedéet so soxoru ndaxte kuy liggéey ci kër wala ngay mbindaan wala ngay nekk foofu kenn du la dagg boo bokkee ci si kenn du la dagg waaye loo xam ne moo moo kenn inditu la liggéey yooyu te bala laa dagg itam day mos nisaab nisaab mooy lan rubu dinaar bu fekkee rubu dinar moom moo gën a tuuti ci càng bu fekkee lii waa ji yóbbu motul rubu dinar kenn du ko dagg kon nag diine la joo xam ne moo mën a yore lépp kon nag fatisam bi hablillah faqad uutiya xayran kasiira nañu jàpp ci buubu yàlla bi nañu jàpp ci diine yàlla bi nañu jàpp ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu mën a nekk comité bu rafet bu déggoo bu ànd parce que kenn ku ne dangay sàmm sa bopp ci sa bopp loo wax sa bopp wala nga tooñ ko wala ci yow lay dellu wa man araada laaxirata wa sa'a lahaa sa'yahaa wa mu'minun fa ulaa'ika kaana sa'yuhum mashkuuraa képp nag koo xam ne da nga tànn diine lislaam alquran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga dund ko ba dee ajjana waaye bi ngay dund itam ci ajjana nga nekk wa tanazzalu malaa'ikatul kiraam fii yawmil iid bi ahlil islaam bés bi tey nag malayka yi yërmande danañ wàcc fekk si ñu ci bis bi yaa ahlal siyaam fatasaafahu bu buuda fii ba ci man saama maqaam ñu saafante ak ñun nuyu ak ñun nañu nag yaa saadata man ubbi la lahu siyaam malaaka yi lan la wax ñu ngi wax ah texe ñeel na koo xam ne yàlla nangu la sa koor ndax see àll bu la nangulee sa koor moo jox sa kado moom yàlla bu dul koor rek des na la fay waaye koor moom ana ajis bi bii man maa koy fay man yàlla kon loolu lu rëy la boo bëggee itam ridallaahi fi fi boo bëggee am euh, ridallaay lu weesu na ko ngërëm ma de yàlla da ngay boo waree rek yàlla gërëm la te boo gërëmee yàlla yàlla gërëm la <laughs> wal qiyaamu ruju ilaa daati rahman alaamatul qubuli wa ridwaan li nit ki nag di xamee ne yàlla nangul ko kooram mooy la nga xam ne bay woon ko bay woon na ko pour koor gi mu continuer ci lool continuer ci lool nag wa ilal maasiyati wa duxyaan alaamatu tardi wal xisla maam si laaj Malick neen waaye nag dellu ca lépp nga bàyyee woon day wane ne yow koor gi amoo ci dara kenn fayu la ci dañ laay dàq sax allah allah ibadallah fa fi taqwa najaax wal karaamata wal fawz wal falaax ba fi taqwa ci ragal yàlla ci la mucc nekk ci la teraanga nekk ci la raw nekk ci la jàmm nekk yooyu mu ngi ciy ragal yàlla boo ragalee yàlla yooyu yëpp am nga donte amoo ñaari dërëm am nga am nga lépp adduna ngi ci biiram waaw fawuz keraama alaama iyaakum suma iyaakum arkabu wal xiyaar maa ngi wattuloo sama bopp di dellu di wattuloo sama bopp di leen wattuloo nag fen ak ak ak loolu du defal dara loolu day yàq fen wor du yàq day yàq wal amaan fa jamiul xayri fi sidqi wal amaan moo leen xeeti yiw mu ngi ci dëggu ak kóolute qaala taala yàlla wax na alaa laanatullahi alal kaasibiin xam leen sama rëbb man yàlla mu ngi nekk ci fenkat وقال أيضا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين yàlla nee na man yàlla de du ma jubal mukk pexey warkat nu mu ko defee ba tërale ko itam du ma du ma ci ànd te yàlla lu mu àndu du doon kon nag fa baadiru bi ixraaji zakatil fitr mudahara li siyaan nañu gaaw teel génn suñu muddu koor li nga xam ne mooy laabal suñu koor fatawuha lil fuqaraai wa ixwaanukum wa anuhum anil jawlaani wa fi taaxil gadi an yawmi al mu ne nga gaaw bu ku génne wutoon itam boo delloo nii bala ngaa def dara da nga fex ba génne ko jox ko ñi ko moom nga nga musal leen ci ci wóoreelu wala na ci bis bi nga fi taaxil qadri al siya al képp na koo xam ne am nga ko ba pare téye ko joxe woo ko loolu dafa may ne mooy la doon ba fii zakaatil fitri na daf la xamante zakka daf la aaya bi mu ngi wàcc ci joxe muuru koor da daf laa texee na manta zakka ku génn muuru koor wayu muuru koor nag waajibatun waajib la faradaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wala tasqudu bi xam ne tey amoo ko du la wàcc boo ko amee suba wala gannaaw suba mën nga ko joxe alal musir wa tasqudu noonu ala man madamuhu fiihim usir diine nag taralu dara bu fekkee ne nit ki ba jamono dox na ba ci kanam itam amut da koy wàcc waaye bala mu koo wàcce nag dafa euh, ñàkk ba mu leen koo jox qaala alayhi salaatu wasalaam sahru ramadan muallaqun bayna samaai wal ardi wala yurfau illa bi zakati far sallallahu wa sallam nee na weeru koor de bala ñu ko yëkkati da ngaa joxe muuru koor wala yurfau illa bi zakati far alhadis qaala rasulullahi sallallahu wa sallam man saama ramadan wa arbaahu bi sittin min sawaal kaana ka man saama dahar lisaan képp koo xam ne gannaaw weer wi weer te nga ci juróomi benn fan mel na nga ko woor eh, at ndax ah, weer bi fukki fa fukki weer la yore dafay dangay mel ne ku woor at mi ba mu mat sëkk wa anhu eh, alayhi salaatu wasalaam man asallah yawmal iid fekk annama asaahu yawmal waid ah nañu lekk nañu sollu nañu naan waaye bu kenn mooy yàlla tey ku mooy yàlla tey bis bi dafa mel ne ku mooy yàlla bis bis pénc dañ ko bu baax allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi leen di ziyaara ci ci dara ci daraja bi ngeen nekk ndax yàlla dig na leen da ngeen woor woor ngeen li ci des mooy yàlla comme que ñun niñ ko mënee dee def nañ ko ba nag noonu la ko yàlla mëne yàlla ñu yàlla mekk fekk ay déwén déwén yàlla nañu yàlla nangul suñu koor jaahi seydil wujud yàlla bu mu nekk suñu mujj koor réew mi yàlla ci wàlla wàcc wàcc jàmm yàlla na fi yàlla wàcc jàmm kenn ku ne nag jàmm réew mi yaa ko yore boo jàppee sa lamin nga am taqwallahi nga am ragal yàlla nga xam ne am na koo jëfanteel ko ku la bind indi la fii ci moom ngay dellu ndax bu nit génnee àdduna dañ naan ko nañ ko jébbal boroomam kon nag nit day fexe ba jébbal boroomam ba ñu koo jébbal borom yàlla nañu yàlla dimbali bi jaahi seydil wujud sallallahu alayhi yal na yàlla indi atuwaay ndax l'islam bi bu baaxee rek banque day ma day day na kër du fi ñàkk loolu lépp mu ngi nekk ci l'islam bi euh, mag ñi jiitu yal na leen yàlla yërëm ci jégal ñu ngi defee seen nekk bi ba ci kanam ak kanam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa kenn ku ne jàng fatiha salaatu ala nabi bu waay man teg ci juróom-ñeent yàlla teg